ok. voilà leer na nag leer na nañ. yaa ngi may dégg. ah leer na nañ leer na nañ. bu leer na de leer na nañ. ah benn kon écouteur kon sama kóol ba dafa am problème. waaw la mi ngi leer na leer na nañ non non peut-être lii xew may am na téléphone yu bari yoo xam ne tey booy def live def naa boo nekkee au parleur. donc bu fekkee ah, ah, je ne sais waaye léegi yow demal bismillah gëj na gëj nañ laa dégg. waaw grand maa ngi lay ziar maa ngi lay bu baax a baax maa ngi jégalu naa ah, ci ci boobu léegi maa ngi dugal nag affaire yi bañ. sëñ leer nga nag xaw ma nag nu mu demee nii nag waaye leer nga nag. <laughs> est-ce que du ñàkk xaalis moo may leeral am na ñun suñu saar ñàkk ñu yi ñàkk xaalis moo ñu leeral leer nga daal en leer nga. <laughs> ñàkk dañ laa diw beurre xaw dañ laa diw fromage laa leer. non grave, dina ma rey. daa daa ziar maa ziar bu soxna si fa mu baram am dal fofu la fa mu jàpp daal foofu mu di baaraam. mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. wa ngi lay dégg ko ñu koy ziar bu baaxa baax fofu la. wa bismillah legi ñu bayila la nga nuyoo gars yi. waaw lay ma lay ma lay ziar bu baax baax grand di la di la bëggee bu baaxa baax di di nuyu suñu mbokk internet yëpp. déjà sunu la démb waroon nañ def waroon nañ def euh, chronique yi mais xam ngeen rek d'habitude dafa am ay ay gàllankoor yu ndaw. moo tax tey ñu poussal ko ba tey quoi donc donc maa ngi mm-hmm. nuyu ñëpp nag di ñaan yàlla rek bañ wax lu ñuy xebe. Uh-huh. et que di dellusiwaat rek juste pour wax si actualité yi comme ni ñu ko defee saa su ne di fàttali rek ni chaque live dañu wax ni ñun suñu def chronique yi pour jafe-jafe ñu sénégalais yi ak actualité ñu siy waxtaan ak suñu xel yu gàtt ñu échanger ci ndam mhm. xëy na du dañoo xam sax mais li ñu am ku sub tuut ak gëstu ñu partager ko ku nekk wax ci sa xalaat ñu xool lan mhm. moo ci gën ñu jëriñoo ko des fois ni ñuy waxee ñun sax noonu lañ ciy jëriñoo comme ñun ñëpp exactement non c'est très important des nga gis benn commentaire boo xam ne da wax loo xam ni waaw donc euh, vraiment vraiment Karim defe naa mhm. ñun ñëpp euh, tey comme ni nga koy waxee man de ama personne euh, fekk naa fi ay Abdou Karim Gueye Mm-hmm. fekk fi ñoom uh, assan Diouf. Mm-hmm. fekk fi ñoom Guy Marius Sagna. Mm-hmm. waaye kanton on dit vrai. ndeysaan balaa sax may seetaan suñu frère uh, assan dama la daan gis lu yàgg ngay wax ci affaire imam ndaw booba. booba ndeysaan maa ngi ne mais waa ji kan la toujours tribunal benn waay mu ngi xeexal benn imam. te bu ma waxee dara. doo mhm. eh, dig ko gëm sax nag mais gis nga falaa gis nga affaire imam ndaw mhm. falaa jaar ba jàpp Seyda Zeynab yàlla fa yàlla na ko yàlla yërëm taxari ko àjjana yàlla na ko yàlla yërëm Seyda Zeynab musuma koo jot musuma koo jot j'ai pas eu la chance musuma koo jot ci àddina ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye toujours ma jotanteeg borom këram ndeysaan yal na ko yàlla yal na ko yàlla yërëm taxari ko àjjana Karim Ndaw bëgg naa ko bëgg boo xam ne saa yu ma jullee naa koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm taxari ko àjjana ndax nit moom xam nga xam nga sama sëriñ yàlla sama sëriñ ñu baax ñi daf leen di teel a yóbbu wala mu gàllankoor leen non du gàllankoor sax loolu du gàllankoor sax yàlla yóbboo Seyda Seyda Zeynab mhm. Karim keroog biñ ma ne Abdou Karim Gueye dafa am lu koy metti tuuti sama xel mi <laughs> ma ne xoolal ma yàlla ma ko ñi gën ci Sénégal rek yàlla ñi gën ci senegal ñi nga xam ne ñoo gën ci ñun toujours ñoom ñooy am ay jafe-jafe waaye nga xam ne yàlla yàlla moo di rek Karim xoolal corona bi rek ñëpp a ngi corona. nit ñu hmm. baax ñaa ngi corona. délinquant yi. <laughs> dara jotu leen ah? nit ñu baax yaa ngi corona <laughs> ah xoolal député bi Mamadou Lamine Diallo mu baax mi nekk assemblée nationale. waaw ñu fay dimbali de kooku ah. dimbali nañu fa bu baax a baax a baax. nga xool député Macky Sall yi nekk yow waxoo man maa ko wax te tey ko député Macky Sall yi nekk assemblée war a corona yëpp. Moustapha Niass ne fa yi nekk bi ñoom ñëpp corona bi war leen. yàlla faale wu loolu daal di leen <laughs> tey yàlla mooy ñoom Idrissa Seck nekk yàlla ñi mu corona ya Allah bàyyi koro gaay ah. ah ya rabbi ya Allah yow ya. xam li ngay def kenn ya. ci dara tey yàlla yaa xam. gis na man bu ma corona Ya bu ma dénkoon corona 10 minutes Abdou Karim. seen hmm, problème nga réglé lu bari ah yàlla bu ma dénkoon corona 10 <laughs> minutes bu ma ko dénkoon corona bi. suñ ma ko dénkoon dix minutes ma tàmbale ko ci ñoom Moustapha Niass ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ñoom Mansour Faye ah oh yàlla. ne rey ne. mais grand am nga am nga dafa am loo xam ni yàlla moom yaa xam nga yàlla moom. Ah! yàlla moom euh, yàlla yaakamtiwul. te yàlla dafa def moom dafa am loo xam ne ay mbirum da koy def mu ne. yàlla moom suy suy suy su indee suy indi musiba ñi de nekk natt ci ñoom ñi mu nekk bugal ci ñoom. ndeysaan yàlla xool yow da nga baax wala da nga bon déedéet dafa mel ni rek ay menentaan di dox ay menentaan di dox sa kaw soo faxasoo bu la ci benn matee soo faxasoo yeneen la sax da nga leen di noonu lay defee yàlla moom yàlla moom buy buy def buy dóor day dóor rek après da mu nekk nattu si ñoom ñi def lu tax mu war leen dal mu nekk mu nekk mbugal si ñoom donc loolu la yàlla di doxale yàlla mooy yërmande yërmande yàlla dafa doy waar yàlla yàlla dafa bëri yërmande grand moom moom moo xam li muy def moom rek moo xam yàlla rek moo xam li muy def ah, yàlla na yàlla yàlla na yàlla yërëm rek yal na yàlla yërëm jaañu yal na yàlla yërëm jaañu amiin yaa rabbi ya allah amiin amiin yaa rabbi ya allah mais Karim mm-hmm. Karim balaa ñuy sori ñaari mm-hmm. ñaari kaay yu doy waar senegal mm-hmm. waaw yow yow moom yu bari du ma la ci dugal ndax yow moom bu ma la ci dugalee da ñu nañu jël si côté si côté gars yi mais bu ñu leen si côté de mais Karim suñu borom diine yu bees yi nag Karim Karim nag Karim nag Karim nag tooñ tooñ baaxul waaw mais loolu loolu c'est que man grand man nag kaam wala dara du ay ci côté man gisewu ma non de man ah. man li man li wax ci loolu gis nga affaire diine yi waaw affaire diine yi man limay ma wax c'est très ah. simple ñoñu dañu am sen droit def seen diine ni mu la neexee biir Sénégal am nañ sen droit def sen diine non man idée bobu laa man idée bobu loolu la gis de parce que ñoom sen diine bobu ak sen yoy ñu tek nonu constitution Sénégal mo autorisé ne kenn ku nekk am nga droit dund sa diine tant que loro ci nit rayoo ci nit gaañoo ci nit am nga droit dindi sa diine nu la nexé ñom dañu tabax seen kaaba fofu di tawaf di dund sen diine parce que constitution Sénégal taxi, mo may lolu mo ko may moo leen may ñu def loolu macha allah li nak ken amul droit dem fofu nan da ngay xeex ak ñoom parce que yoon mayewul loolu mm-hmm. maanaam sénégalais ñun ñëpp biñu d'accordé bu ba dañu dañoo tënk constitution moy charte nday réew charte nday réew bi ci laïcité lay dox moy laïcité bo xamante moy la religion de ceux qui n'ont pas de religion manam ñun dañu nek ci république lañuy d'undé république dañuy d'undé nak boobu nonu mo maye ba nga xamante ni ku nek yow li nga gëm bu la nga japp benn keccax di ko weer ko wejji ne moom wala doy moy sa yalla uh-huh. ken amul droit def la dara ngay jamm sa keccax bu la xencoo nii mooy julli bi nga tegaat sa keccax loolu ken amul droit def la dara loolu moy yow uh-huh. loolu nga gëm constitution Sénégal mu may loolu mais lam motax ñun boobu ba léegi ñu ngi xeex di ray suñu bop di wax pour dindi fi constitution bi tek sharia gars yi comprendre yaaka ni boné sharia da ngay dindi chrétien yi wala fekk c'est faux fekk c'est faux la laïcité bini nii accepté christianisme accepté wul islam accepté le dara lépp la yemale. amul diine mu mhm. valeur c'est-à-dire religion révélée manam tay tey chariatul islam ni mu accepté tay christianisme nga xamni tay euh buñu bu tay ñu charia digul ko Sénégal diko ko Bo démé bo bo boo mhm. ba nga xamante yow chrétien nga dañ dañ lay respecté ci say mhm. norme tout en respectant chariatul islam bi nga xamni majorité bi moy la démocratie liñ ñu la démocratie moy quand la majorité l'emporte la la majorité sénégalaise elle est musulmane donc majorité bobu non. mais liñ bëgg liñ dund liñ nekk loolu lañu ñu war a dund mais Sénégal mhm. loolu amu fi donc Sénégal nañ xam loolu quoi kenn amul droit poñi kenn naan kon gëmal lii wala toppalee parce que texte constitution mhm. Sénégal moo ne ku nekk am droit gëm la neex dund la neex léegi nag bu fekkee dem nañ nag réew yi ñëpp ba ñu juboo ne Sénégal nag religion bii moo fi dox su boobaa nag ku fi nekk di gaamu leneen ñu wax ak yow islam mhm. nag la mu wax ca loola islam la mu wax ca ñooñ di jaabu beneen kaaba tey bu doon màkkatal mu karam la rend mën nañ lañ cee fekk ñoom parce que màkkatal mhm. karam islam mo fay dox chariat islam mo fay dox boo demee yeneen mhm. dëkk yi nga xam ne charia fay dox mais Sénégal dara dox fi dëkku franc-maçon la manam Sénégal mhm. taxi ak loi yalla bokku ci dañ cee dindi yàlla Sénégal ci côté paperasse manam ci walu keuy ci côté walu keuy ci tout ce qui est institution constitution yalla bokku ci maanaam dañoo jël yalla génnee ko tek ko ne dañu doxal suñu doxal bopp Mm-hmm. loolu doxal boobu nag moo tax ñi ñii di jaamu ay Kaaba Kaaba ay Kaaba tabaxu ay ay ay ay Kaaba Kolda ñii di jaamu fële ay xërëm ñii di jaamu ay xamb ñii di jaamu ay yu kenn xamul. loolu mooy problème ma man man sax bi may màgg Karim wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg rek te yàlla tax man rek bi may màgg vraiment euh, gis naa ay affaire yu kéemaane Sénégal ay nit yuy jaamu ay xërëm ay nit yuy jaamu am nga xam nga nit ñi xamuñu mais chrétien. chrétien ak jalang boo demee tey Casamance am na ka ruqu Casamance yu garaaw yoo xam ne dafa am affaire xërëm yoo xam ne moom la gars yi di di di jaamu te nit ñi ñu comprendre loolu mais li Abdou Karim Gueye di wax borom xam-xam yi lay waxal borom xel yi xam nga dëkk buñ ko defaree constitution dëkk bu nekk dafa am lu tudd constitution bien vrai que ñun suñu constitution nag li ko xaw li ci xaw a doy waar rek jipp la jipp la boo xam ne dañ koo. waaw xam may tey du constitution. waaw voilà donc saa bu neexee gars yi rek ñu am luñ ci dagg debedaaxe defaraat. gis léegi nag problème bi xam lan la grand xam lan la ñuy jàng ci loolu. waaw lan la jàng tey ñun ñu nekk fi dëkku Serigne Touba dëkku El Hadj Malick dëkku Bagnas dëkku Limamou Laye dëkku jàngu bi ñu am ay nit ñu gëm nga xam ni dëkk bi 95 pour cent de musulmans 5 pour cent de chrétiens dëkk bi c'est des croyants au fait. léegi dëkk boobu nag nga gis nag ñun ñu sàggan ba ay nit tabax seen Kaaba Kolda te mënuñ ci ñoom dara. loolu moo tax war a jug moo tax war a jug suñu bopp nag amna na moo tax ñu war a jub suñu bopp ñuy wax sax ñu ne quel est le droit de nos religieux mu am lu ci ngeen comprendre ko suñu religieux yi gars yi amuñu ndombal tànk mënuñoo tek kenn daan suñu religieux yi bu ñu wootee mooy mooy tey li dal sëñ Modou Kara donc yéen yéen a ngi weddi seen bopp parce que religieux amul ndombal tank religieux mën na ci diine islam ko def warul warul def ñu ñu ñu mandargaal kenn wala ñu dóor kenn wala ñu kenn

tout en respectant les catholiques ak seen diine ñu jaamu sen jaamu yalla ñom ni ñu ko bëggé te duñ leen déranger. Mhm. mais loolu boobu légui ñu koy kaas di ko wax mais Sénégalais yi dégluwuñ ñu. parce que tey tubaab bi nax nañ ñu ba nga xamanteni ni bàyyi nañ fa loo xamante ni tey boo nekkee tey boo demee tey boo demee li fi gëna a bon li diine gëna bañ nak muy catholique yi bëgguñ ko la religion chrétienne bëggu ko la religion musulmane bëggu ko religion révélée yi liñ bëgg liñ gëna bañ amna Sénégal te kenn mënu ci dara tay bo xolé nanum sàngara bi benn diine diglewu ko cagatu benn diine diglewu ko lépp lu bon loo xam mi ngi am Sénégal loo xam dina la koy bañ mi ngi am Sénégal te sëriñ si mënuñ ci dara évêque yi mënuñ ci dara prêtre yi mënuñ ci dara léegi loolu lan loolu moo tax ñu war a xam ne ñun ci li ñuy dund dañu war a fexe méngoo mu jéem méngoo ak li neex yàlla tey suñu mhm. constitution ñun tey suñu alxuraan constitution bu Sénégal la mooy charte nday réew bi mais mhm. constitution boobu nag nga xam ne mooy suñu alxuraan ñun mooy li ñu war a attewoo di ko doxee di ci wéeg di wàcc lu ñuy def foofu lay dellu alxuraan bi sax amul baat ci kaw constitution bi mhm. boo demee tribunal nga taxaw da ngay keroog maa ngi koy dem nga jàkkaarloog juge bi juge bi nekk uh-huh. xale bu ndaw nekk jigéen yow nga nekk mag bu gendarme bi duggee juge bi su ñëwee day fëgg taal ne levé bu ñëpp jug taxaw asseyez-vous ñëpp toog uh-huh. gendarme bi ne la simil uh-huh. sa mbaxana nga simmi sa mbaxana te lool du aada Sénégal du cosaanu Sénégal Sénégal xale du sol mbaxana ci kanam du simi mbaxana ci kanam mag mag du simi mbaxana ci kanam xale xale bi juge bi day nekk xale bu ndaw merci l'islam sax xanaa xamoo ci jàkk ci l'islam sol mbaxana bi dafa normal merci merci beaucoup donc dañuy gis ñuy sol mbaxana di julli mais tribunal juge voilà juge mais grand mu yalla dañuy sol mbaxana wa léegi grand dañuy waxtaan ñu né conseil constitutionnel par exemple conseil constitutionnel ñu né moy les 5 moy les 5 sages uh-huh. mais grand baatu sage muy firi ci tubaab sage mooy lan en tout cas sage bo xamni ne sëñ bokku ci waaw euh, maa yi ñas bokk ci euh, évêque bi bokku ci prêtre yi bokkuñ ci xalif euh, euh, cana ba bokk ci. xalif laayam bokk ci loolu mooy sage. Ah, loolu sage en tout cas sage nante yow kay ne ma les cinq nante. voilà ne les cinq nante kay. léegi nag problème mooy ñun mënuñu gëm nag ñun dañoo gëm yàlla gëm diine gëm yàlla ak ay yonantam nekk ay musulman nekk ay catholique ñu am ay cinq sages yoo xam ñoom ñooy décider ci suñu réew muy doxee bu ñu jaaxle ba jaaxle ci ñoom la ñuy dellu te ñooñu ay nante la ñuy toj seen i kaas di am ay gel amuñu diine jiite wuñ benn jàkka xamoo ndax jàng nañ alxuraan du diine lañ leen defee sage nag ngay nit sage ah, ci loo koo xam ne yow mënu la assuré ci wàllu diine dara. en tout cas baatu lu muy firi. en tout cas c'est que léegi nag yow dëkk moomu nag yow nag nga mën a taxaw da ngay fekk nit di jaamu benn benn benn euh, yàlla am kolda nga ne ko doo ko fi jaamu. am na période yi am na lu jiitu loolu d'abord. ah mais am na lu gën a am na lu gën a grave xam nga man loolu lay wax nit ñi toujours ñu ne loolu dafay yàq dëgg pourtant day yàq dëgg xam nga lan motax tay dekk bi bii ñu nekk onkul oncle ma man fe tok yéen lu yéen droit bi ngeen amul sax eh, Sénégal Titi Camara man ma am ko waay Camara nam na la ci ah. <laughs> di <laughs> Camara na la way ci di Camara way la di ci di Camara non mol ci di Camara nam na la way non aga ci <laughs> di Camara ci di Camara toj toj dekk bi rek la fi nekkee bokku ji bokku ji agay bandi ruwele day ruwele day ruube de waaw mais mais Karim. Euh, ci sama mbokku dëggal ko rek mm-hmm. pour dëggal ko rek Titi Camara moomu tey mën na koo dëggal. Mm-hmm. gis nga ñun da ngay ñun ñaata profet nga defee na moo am Amérique. Mm. <laughs> Amérique. Mm. Amérique booy kaana yi day dem ba mu neex leen ñu solu ñu ne ñoom prophète lañu. waaw parce que parce que ñoom seen constitution moo leen ko may. voilà kenn du leen ci laal kenn du laal diine kenn. loolu de pour man yàqul dëkk defarul dëkk pour man. pour man la yàq dëkk grand dëkk nag de. non bu ma nee non kaay ma wax bu ma nee yàq dëkk defarul dëkk il faut ñu am fu il faut nga comprendre fi may waxee gis nga tey Abdou Karim ñun suñu problème problème mu Sénégal déjà njiit yi la xam nga ay njiit yu baaxul saa boo ko amee ci dëkk bopp train bu jubul mënta jubbanti train bi mënta dem taat bi mënta jub mhm. ñun Sénégal tey du li yi di créer du li yi di def ci biir dëkk bi moo ko yàq mais doomu aadama yi ñu jiitu ak li nga xam ne loolu la ñu permettre ñu mën koo def ci biir dëkk bi ñoom ñoo ko yàq. Mm-hmm. xam nga tey dama lay jox exemple rek tey boo doon jàpp exemple Amérique xam nga Sénégal dañoo bëgg a jëlee Amérique dëkk jàpp ko pourtant Amérique nañu ne ci avancement avancé na mais pourtant Amérique ci dëkk yi gën a toskari la bokk ci àdduna bi Abdou Karim waaw ci wàllum ci wàllu valeur. ci wàllu valeur Amérique amul valeur. amul valeur waaw musiba la. non amul lu tax am na tey ay doomu aadama yoo xam ne dañu am problème seeni ay doomu bopp mënatuñ leen yar. dëgg la. sa doom bi bi nga jur. man na laa romb tey ak mini dem génn ci biir dëkk bi def lu ko neex man nag la yàlla xam doy na yàlla dafa def rek man charia bee dugg sama bopp bi ba yàqu man sama kër charia diineel islam moo fay dox. ku nekkul ci biir kër gi nag lu la neex nga doxal waaye boo xasee ba dugg ci biir kër gi bu dee jigéen ñi dinañu muuru bu dee góor ñi danañuy waxas yéegal suñu tube yi ba mu mat sëkk ñuy julli. dëgg la di woor di jaamu yàlla ci biir kër gi. Ah, léegi ku nekk mais xam nga danger bi xam nga danger bi nekk si loolu xam nga danger bi nekk si loolu mooy c'est-à-dire xam nga diine euh, euh, xam nga alxuraan dafa dafa dafa dafa mat dafa complet mm-hmm. xam nga yàlla bi mu bindee addunaam bi dafa yónni ay yonantam Mhm. dafa mel ni rek tey nga jaay ma frigo tubaab bi la jaay frigo da lay jox mode d'emploi au frigo bi. Mhm. ne la frigo bi fii nga koy tijjee fii nga koy taal li mooy thermostat bi maanaam bu mhm. tàkkee doo ko taalaat ci saa bu courant coupé da nga koy débranché après doo ko taalaat ci saa si da ngay xaar mu expliquer le mode d'emploi bi naka la ñuy utiliser frigo bi parce que moom moo defar frigo bi ku la jaay portable da lay wax naka nga charger portable premier jour doo ko taal da nga koy charger day am mode d'emploi mais noonu la noonu la àdduna amee mode d'emploi Mmh. yàlla dafa bind aduna bind ay yonentam ñu indi seen i ak seen mode d'emploi yalla moñu mom mmh. daf ñu jox mode d'emploi naka lañuy dundé ci aduna bi naka lañ wara nekké ci aduna bi léegi ñun biñ ko dindé teg ko ne boobu lañ boobu lañ réer léegi yow bu féké da nga ma jaay yow da nga ma jaay sa auto néma auto bi kat mode d'emploi nil man ma bëgg utiliser auto bi neneen nudul mode d'emploi bi nga xam yow moom nga ko defaree yow mom auto bi mais damay di je risque d'avoir des problèmes avec la voiture mmh. c'est que loolu mooy suñu problème ñun te loolu moo ñu réeral mooy dañoo dindi yàlla ci àdduna bi te yàlla moom ma àdduna bi ñun dañoo dindi yàlla uh-huh. ci ni ñuy doxalee suñu àdduna uh-huh. te yàlla mi la bind xam la moom la kooku bu ne laa yow ngay dundee heure bii ngay tëdd heure bii nga war a nelaw heure bii nga war a uh-huh. jaamu yàlla nit waroo lekk lu baaxul waroo def lii waroo naan sàngara waroo def lii moytul lee kooku moo la xam moo la bind kon kooku moo la bi ngay dundee mais nga dindi ko ci ni ngay doxalee mais ay jafe-jafe rek ngay am ay jafe-jafe rek am c'est loolu mooy suñu problème numéro un problème numéro un donc léegi man dama gëm ni Sénégal ñun man yàgg ko kaas yàgg naa ko wax naan Sénégal dañu war a fexe ba ñu doxal ko ci chariatul islamiyya gars yi naan noo kon def catholique yi ma ne leen chariatul islamiyya dafa respecter les catholiques les catholiques pourront vivre avec leur religion ci jàmm ci dal ndax yoon ci Yàlla Mohamed ba mu waxee julit julit ba ñuy daw di exilé daf leen ñu daw bi ñu demee Éthiopie xaw ma ba ñu demee ci chrétiens yi ñoo leen fatoon mm-hmm. leen boobu jaaxle na chrétiens yi mm-hmm. ñoo leen fat mm-hmm. parce que la religion chrétienne religion yonent yàlla Iisaa yàlla moo ko yónni mi ngi ci alxuraan ñun islam dañoo nangu tous les prophètes yi nga xam ñu ngi ci bi te yonent yàlla Iisaa mi ngi donc kon ñun mënuñu yàlla yonent yàlla Muhammad bi mu nekkee moom bi mu nekkee di dund dund ak di dund ak di dund ak chrétiens yi di dund ak ñoom c'est que loolu moo tax ma ne boo gëmee yàlla sax da ngay gëm ay malaakaam merci gëm ay yonantam donc kon ñun sunu problème ñun nekkul ay wàllu c'est-à-dire ñun dañ ñun naxee non charia boo ko tegee égal dóor nit égal dagg baat or que c'est archi faux charia au fait Lol moo ci mooy maanaam tey bu ñu nit ci dinañ def tous les possibilités pour bañ ko door tous les possibilités dinañ ko def ñu Karim day njaaloo am ku juggé côté bi Karim day njaaloo né mom gis nako am kenen ku ñew ta xamul xamul ki ko wax am kenen encore ku ñew ko xamni ne wala ñeneen ñi am kenen encore yoyep dañ ko les possibilités xam ngi koy rassembler pour fexé ba waa ñu donc pour Am ni charia mo compréhensif moo gën a ëpp yërmande moo gën république bu bon bi nga xamante ne nii moo formé ay doom yu mel ni Macky Sall. en tout ay doom yu mel ni Senghor. moo formé ay doom yu mel ni yu mel ni Abdou Diouf cest dire xam dafa am loo xam ne il faut gars yi comprendre ko cest dire ñoom a baax a a baax ba a baax yonent yi yonent yi yàlla tànn ñi dañoo baax mu jox leen baax a baax a baax ba gën a baax organiser ba gën a organiser yàlla mi bind àdduna bi def xel def nopp def bopp may leen xel defar lépp programmé ko ci cerveau doomu aadama ñoom mënuñu baax ëpp yàlla mi nga xamante ni moom moo yërmandeem la tàggatee àdduna bi ngay nooy ngelawam di nooy léppam donc kon il faut nit ñi yegg ci dimension wu comprendre bu baax a baax lan la lan mooy dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla bi quoi nekkul ci ay nan non non attends l'islam tu charia boo ko waxee noonu ay musulman ñoo lay wax loolu non charia non cest xamuñu ko seen diine xamuñu seen diine c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa su su ñëwaatoon ci kaw suuf tey day am problème day am problème parce que ay jullit ñoo naan ko non saa yi ñoo xaaral foog ñu waxtaan léegi nag il faut nga dañ koy expliquer non attends xaaral ma ñëw bu ne la yàlla nee na amul pourtant amul mais réfléchiral xool ni yàlla li tax mu wax lii nga gëstu ko bu baax nga comprendre mais uh-huh. tey benn sénégalais amul droit naan day critiquer benn sénégalais buy jaamu quoi que ce soit li ñu am pour critiquer ko mooy suñu texte yi nga xamante ni dañ ko tënk ci suñu tur ñu ñëpp o nom de les sénégalais texte yi uh-huh. méngowul dara ak yàlla méngowul uh-huh. dara ak yonentam yi méngowul dara ak suñuy muy constitution au Mhm. grand code pénal u Sénégal code de la famille wu Sénégal code de la famille famille bi am na ci article boo xamante ni mhm. xoolal am na soixante dix articles yoo xam benn méngoowu ci ak diine du catholique du islam am na ci article boo xam xam lu muy wax xale bu jigéen bi am na droit dem jaay boppam. waaw mais Sénégal. su ko parent su ko su ko parent su ko parent porté plainte. su ko parent porté plainte. su ko parent am créé lee mu porté plainte parent bi su ko parent am dóoree mu tëj papam ci kaso bi. waaw loolu ci code pénal code de la famille code bu Sénégal bi wax ma bu Amérique bu Sénégal dëkk Serigne Touba Alaaji malik Baye prêtre yeeg évêque yi nekk yëpp nii valeur di ñon di Sénégal nan magal Touba gamu tiawan gamu Kaolack Njaasaan ak alxuraan bi yoy pourtant suñu doomi ñun bu ñuy tagatu ñun mënuñu ci dara grand est-ce que xam nga ni li ñuy wax ni nan ay no diw mi ngi jaamu ay tabax ak ay ki xam lu grave tay Sénégal mm-hmm. ministère de la santé bépp jigen bi prostituée jigen bi prostituée jigen bu jaay boppam Sénégal waaw bu fekkee day prostitué wu ministère de la santé da koy couvrir bu amee carte prostituée su ko amee ah. bu amee carte bi ministère bi da koy couvrir ordonnance am 70 pour cent wala 80 pour cent ordonnance bi ministère de la santé moo koy fay man maa koy fay yow yaa koy fay ak sama doom ak borom boutique ñun suñ contribuable la ñuy jël di ko fayal ordonnance am man sama jabar su ëmbee kenn du ko fayal dara ministère bi jël ko benn charge man maa koy fayal sama bopp. parce que dafa am ay ay ay ay dafa am ay ay subventions yoo xam day jógee ci organisation féministe yi ak organisation euh, moy les familles féministes yeeg yu jógee ci niveau international yeeg yoy sen accord diplomatique yeeg yoy nga xam légui moy couvrir jigen nga xam dañuy jaay seen bopp te loolu mi ngi commencé dugg ci côté góor jigen ni subvention bi c'est-à-dire yooyu laa yow mëno comprendre yow tay en tant que sénégalais nga ni jullit nga ngay julli di wor nga ni chrétien nga ngay jamu ya di rey sa bopp te yaa ngi fi dépend ya ngi yaa yaay faj caga ya yaay faj góor jigéen ñi xam nga yooyu c'est-à-dire moo tax Sénégal il faut ñu xam quoi en fait balaa ngay songu kenn naan day jaamu leneen lu dul yàlla yow sa jëm bopp xoolal yàlla bi ngay jaamu lan la grand LONASE loterie nationale sénégalaise la tudd dañ ñu ko moomale ñun Sénégal loterie nationale sénégalaise xaalis boobu dafa xaram ti faa dañ koy def ci contribuable Sénégal bi di ko def ci ci ci ci kii bi euh, ci xaalis Sénégal bi jël ko di ko fay fonctionnaire di ko jox sëriñ si ay gàmmu ay kii ay ay tuub ay ay gàmmu dinañ ko jox xaalis boobu riba boobu la ñuy fay ay papa bu ba ñëw ñu jël ko boole ko ci salaire am doomam lekk ko c'est que yooyu yëpp dafa nekk sa kaw yow balaa ngay wax keneen kuy julli Matam tam fële Kolda waxal sa bopp yow yow yow comprendre au fait ok balaa nga balaa ngay wax di di expliquer keneen di expliquer yow waxal sa bop yow yow. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi Abdou Karim mu am beneen beneen waxtaan bu am solo boo xam ne tàmbali woon nañ ko sa ginnaaw toujours. Euh, ñu bëgg cee continuer muy kaaw Assane Diouf. Assane Diouf dañ ko euh, chambre correctionnel daf ko war a le vingt quatre mm-hmm. euh, procureur moom le quatorze janvier la joxe euh, pour ñu atte ko ci te ñu xam ne bu ñu waxee li nga xam ne moom yoon te muy dëgg je pense que bu ñu amee ay liberté provisoire di ko jox criminel u àdduna bi yëpp euh, ñi ko gën a yellool te ñu doon xeexal Sénégal te mandargal gaañuñu kenn je mm-hmm. pense que ñoo ko gën a yellool naka nga mm-hmm. gisee le cas Assane Diouf waaw grand gis nga kaw Assane Diouf mom maa ngi expliquer fan yii yëpp. maa ngi koy xam Assane Diouf. man waxuma waxuma sax saga yu Assane Diouf ni saga gaay yi nañ ñu bàyyi ak Assane Diouf na baye saga yi Assane Diouf na baye saga yi Assane Diouf day saga day saga Assane Diouf ñëpp xam nañu day saga Assane Diouf day faga moy géej gi am na ndox ay waxu saga Assane Diouf waxatuñ ko dépasser nañ dimension bobu non nekkuñ ci dimension bobu parce que saga motax ñu xam Assane Diouf man saga motax tax ma xam Assane Diouf. exactement ñun ñëpp saaga ñu xam ko bu doon tey saaga yi duñ ko xam kon. Assane Diouf day saaga dafa saaga te ñun mu xorom ñu Assane est ce que yow xoromu la est ce que man xoromu ma. Sénégal Sénégal boo dajee nit ci mbedd mais Abdou Karim est ce que Sénégal ay xarit sax bu ñu dajee ci mbedd et eh, diw damay nangam taala diw damay nangam taala yooyu la Sénégalais di fooyee. léegi léegi li mu bëggoon aussi loolu mais Abdou Karim dañu waxante hmm. dëgg xam nga tey Sénégalais yi comme li ngay wax ñàkk valeur boobu ngay wax. Hmm. Sénégalais yi bu ñu dajee ci mbedd lu ñuy def du dañuy saagante ndey seen biir. waaw ah. mais c'est grave. diw damay nangam tan diw damay nangam tan diw damay nangam tan rek da ngay gis sa ben xarit bala nga wax dara mu dagal la ben saga nday bo xamne yow da ngay yakar ne c'est normal mais c'est grave c'est grave Abdou Karim te est-ce que xam nga ne man mën naa rey nit ci saaga ndey man ku ma saaga ndey mën naa laa faat mais xam lu graaw grand mooy xam nga xam lu graaw si c'est que xam nga man li wax ci saaga yi mooy li wax ci saaga yi mooy li tax ma ah. ci bëgg ñu bàyyi di wax Assane Diouf day saaga day saaga Assane Diouf man gis naa ko ci kaso bi. vraiment Assane Diouf man gis naa ko ci kaso bi. exactement grand bàyyi saaga yi ñu waxtaan. bu génnee dañuy jëm a fexe dem gis ko lu nax parce que ñun soxla nañ ñun soxla nañ Assane Diouf ci combat bi. exactement ñëpp lañ soxla ci combat bi. exactement léegi combat affaire bi xam nga lan la affaire bi mooy Assane Diouf buñ ko téye ci lu mel nii ci ay saaga injure ñu jàpp ko ko ñu jàpp ko instruction tëj ko six mois lu ba tànkam di metti yóbbu ko convoi jëlee ko Cap Manuel yóbbu ko euh, fële euh, Camp pénal téye ko fa te ah, Assane bi mu nekkee Cap Manuel fi ñuy denc terroriste yi lañ ko dencoon ki ko tëjaloon ki ko booloon chambre imam Abi Touré kooku dañ ko jiñ terroriste ñu jàpp Assane Diouf jiñ ko loolu tànkam di metti ñu jàpp Assane Diouf tëj ko justice sénégalaise amuñu benn vergogne sans jet nit koo xam ne saaga lañ ko jàppee ñu yóbbu ko instruction mel ni deful flagrant délit mu mel ni dafa am enquête dafa def crime wala dafa ray nit wala dafa dafay jaay drogue wala melni ko def ay mafia wala braquer banque wala yooyu voilà mais armée wala ay yooyu waaw léegi dama xamul léegi nag maanaam léegi li graw moy li graw moy li xamul lu graw si affaire bi graaw xam affaire bi la moo si graaw lu sénégalais yi bàyyiwul xel moy naka la justice sénégalaise meuna a lool japp nit tejj ko ci lu mu deful quoi manam tejj ko tejj bo xamni ni bokkul ak li def yóbbu ko Abdou Diouf Assane Diouf dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu instruction ci ay enquête quoi enquête enquête lan la justice bi li muy def nii loolu loolu daf lay wan ni la affaire dafa graaw c'est-à-dire loolu man muccu ma ci yow muccoo ci ñun kenn muccu ci maanaam suba man euh, gendarmerie mën na ñëw jël si ma ne ma Karim bon sa kanam moo ñu neexul wala lu ñuul nga sol jël ma yóbbu ñu ne dañ may denc pour enquête ba xam lu tax mooy sol lu ñuul tëj ma ci kaso bi ba keroog ñu la ñu neex ñu bàyyi ma parce que loolu lañ def Assane Diouf bu fekkoon bi ñu ko jàppee ci saasi nee nañ kat dafa ko flagrant délit taxaw mu taxaw ñu tëj ko une semaine woo ko atte wax ni kat dafa saaga temps de weer lañ koy tëj ñu xam ne kii lañ ko tëjee mais kenn xamul lan lañ téye Assane Diouf saaga la ñu xam ne ñëpp saaga la ñu jàpp ko yóbbu ko yóbbu ko foo xamante ni fa la ñuy denc fa la ñuy denc criminel teg ko ci chambre boo xamante ni fa la ñuy tëj criminel yeeg reykatu nit yeeg jaakatu phobie yeeg ak ak ak ak terroriste yi ci koo xam ne saaga la c' est que injustice boobu noonu laa lay wax c' est que loolu moo grave loolu c' est tellement grave te Sénégal yi rendre ci compte te loolu mën na dal sama kaw tey mën na dal ci kaw Guy Marius Sagna mën na dal ci kaw keneen dal ci keneen dal ci loolu mooy danger bi au fait léegi nag sénégalais yi dañ ma bëgg dama bëgg ñu wax ma quoi Assane Diouf ah ndax Assane Diouf moom Penda Ba moo gën Assane Diouf. ah en tout cas. ndax Moustapha Cissé Lo taxaw na fi saaga waa Casamance yëpp ay ndey ne Casamance ay ah, rebelle lañ saaga leen ndey. ak ak xaritu Macky Sall ci waaw waaw léegi wax ba si ba daarul laa yoo ok. waa léegi d'accord léegi xam nga man dama ne ah. léegi yam na sax peut être dañu yam na ci mu saaga waa Casamance xam xeetu lëmb nga saaga leen xeex bu toll ni xeexu Casamance bi nga xam ni depuis 1981 ba léegi mi ngi am ay maam dee ci ay mag ay xale ay famille ñi ampi ñi ñu amputé leen si ay militaire dee ci suñu ñëpp dee côté ñëpp suñu nekk ci naqar boo xam ni depuis des années 39 ans ñu ngi koy jooy di fexe nu mu jeexee di xool nu ñuy naxante pour yàlla seddal ko nga gis ay maire de yoo xam ni ko dund dund bu metti suñu yaay ay nga gis ay ay ay suñu yaay frère ay ay ay ay militaire suñuy frère militaire dem di seeni frère mu bu mu lu metti ci xol ay dund yow nga ber am ñoo ci da nga Ousmane Sonko acteur politique ne leader politique jàpp benn nit saaga ko ay nday dara fekku ci léegi luy ndayu nag Penda ba saaga ñu jox ko passeport diplomatique génnee ko dëkk bi mu dem France Moussa Cissé Lo saaga waa Casamance dara fekk Moussa Cissé Lo saaga Sonko dara fekk ko si waaw léegi Assane Diouf saaga Macky Sall ñu ne tey àdduna bi tukki quoi. te man li ci gën a garaaw Abdou Karim dama ciy sànniwaale lii rek dama ciy sànniwaale lii et c'est important euh, Assane Diouf euh, xorom xorom la tuddee mbir mi te xorom doomu aadama bu ne da koy lekk te xam naa ne bu ñu dindi woon xorom ci àdduna bi te kenn du dund et je pense que Abdou Karim le cas Assane dafa jeggi dayoo mhm. dafa mujjee yërëmtalu xam nga am na yu bari yoo lim am yu ndaw rek yoo xam ne fàtte nga ko Abdou Karim xam nga muy lan Abdou Karim benn doomu aadama bu am jabar am ay doom ci réew Abdou Karim nga fenal ko xam nga loolu mooy délinquance ah nga mhm. tappale fenal doomu aadama boobu Abdou Karim yàqal ko addunaam yépp sëñ bi watat ko indi ko ci réew moo xam ne amatul benn espoir nga ne doomu aadama boobu bu mu wax na noppi c'est ce qui est extraordinaire ah, ci kaw Assane Diouf man li gën a grave lépp Abdou Karim li gën a grave lépp xam naa yéen boo leen demoon xam nga lan ngeen di wax Assane Diouf d'accord nañu ne Macky Sall moo la tooñ mais jéggal ko te yàlla rek tax parce que pour nga ne borom bàyyil saaga xam nga loolu la. Hmm. parce que xam nga Assane Diouf Abdou Karim ki ko ëpp doole moo ko jaay doole jële ko ci wetu njabootam yàq addunaam yëpp yóbbu ko force Sénégal li mu ci adduna yëpp mu bàyyi ko ginnaaw est-ce ne man Abdou Karim euh, Assane ak jabaram dañu am kër Nouvelle-Orléans dañu am gàlle boo xam ne dañ koo jënd Amérique day boot day house xam nga dem naa fa wan naa la hmm. gis ngeen est que xam nga ne Assane Diouf ay bien am dafa jël liggéey xaalisam moom jabaram ñu jënd ay terrain fii ci Amérique pour développer ko pour liggéey ci ñu jële doomu aadama bi fii fenal ko yóbbu ko senegal yàq addunaam yépp te wallahi lazim yàlla dina atte loolu du yàgg nga de kooku du am benn kaddu boo xam ne dala koy wax Abdou Karim est que nga xam nga xale sax boo ko tooñee Afrique lan lay def dalay saaga xale xale boo ko dóoree est-ce que jël xale boo ko jëlee Abdou Karim sa koñ boo demee tey nga jël benn xale mbéj ko mu daw lu muy def lan lay lay def. da lay saaga parce que ak yow. doole méngoowul mu xeex ak amul doole mu xeex ak pour gagner la donc saaga bi rek lay résulté vraiment ma yaakaar rek ne aussi bu fekkee saaga dañ ciy teg ay daan Abdou Karim dañ ci war a teg ay daan yu méngoog li doomu aadama bi def. mais moom l'a salle justice moom amul justice moom ah, grand gis nga justice justice boo def justice dafa war équitable quoi ni ku nek bu fekkee saga moom gis nga grand saga saga moom rafetul saga ken waru ko def ken saga moom du deug saga du yoon ta Assane Diouf saga mi saga du yoon du deug du yoon mais dama ni bu fekkee dafa saga ñu japp ko japp saga atte ko atte wu kuñ saga teg ko daanu kuy

comploté bandi yu bandi bandi de la république yu mag yi ñooy noonu Assane Diouf. Mm-hmm. bandi yu mag yi sàcckat yu mag yi nekk ci réew mi te yu mag yi bandi yi ah Assane Diouf ay noonu Assane Diouf lañ moo tax moo tax Assane Diouf bu askan wi jugul jug dimbali ko taxawu ko du baax donc man damay woo Sénégalais yëpp une mobilisation boo xamante ni mobilisation forte ba Assane Diouf dafa am yaay ami doom am jabar am nekk soutien de famille quoi am ay sœuram ñu yaakaar ko. waa ko ñoom dañ koy yaakaar parce que dafay daj rajali jeunes foofu di defar nekk koo xam dafa bëgg affaire jeunesse bëgg affaire jàppale ay askanam te yàlla may na ko wërsëg bu ndaw bu mbokk ñoom kon na ko yoon bàyyi quoi nañ respecté ñoom nañ jël nañ nekk li ñuy def moo gën a graaw saaga ñoom sàcc ak kàcc rek lañ nekk ci tribunal foofu ak teg dil ñëpp xam nañ ko xam nañ tribunal Sénégal nekk mu dara lu dul leen neex donc kon loolu ñu bëgg mooy nañ teg affaire yi ci léegi nag loolu a jóg def une forte mobilisation def manifestation bo xamante pacifiquement pour la libération de Assane Diouf donc loolu mom vraiment man message boobu daal laa moom lu ma si doon lancé quoi. merci merci. waaw ah, waaw c'est bon Wa ñew nga. ok grand maa ngi nii. tey moom tey moom defe naa macha allah tey moom defe naa maa la gën a de xaw nu mu demee non nak. Tay mom defé na maa la gën a. <laughs> da nga yow gars yaa ma mës gëna taru. a taaru. <laughs> yaa ma mës a gën bàyyi xel déggoo gars yi li ñu wax fi gars yi dañu gars yi dañu naan yéen yéen ci bi ngeen nekk xam nga yow nga nekk États-Unis nekk sa 4-4 gars ne fi di ma la a tey bi bàyyi moom xam nga yow boo toogee tey ba ñuy wax fii ñuy wax ay waxu taar xam nga nag maa bëgg a tooñ ah man ba ma nekkee <laughs> xale ba léegi la vilain lañ ba doon wooyee dama amoon benn xale xam ne moom li li ma jaaxal xam nga li taxoon ma bañ man ñu may wooyee boogaa bizarrement dama amone ben xarit bu ñaaw ma ngi koy saluer de passage seni fay la tudd dafa ñaaw ñaaw ñaaw mais xam nga lu ko gars do doon bo ga la ko do bo ga ah, lañ ma ne li Karim di wax rek man de yalla na yalla yàlla musal bu ma kenn bo ga comme ga ni lay mel man de xamna ah, sam xamna sam ben sam ben sam ben ki sam ben cousine daf dafa ñaaw ñaaw mais joli mama lañ ko tuddee joli maman dafa ñaaw ñaaw <laughs> non bu am bu ma déggee moom mooy dégg di ma bàyyi moom bu ma déggee dana ni Karim moo réew dëgg dëgg damay bàyyi su ma déggee damay bàyyi naka ñaaw ñu tuddee ko sëriñ Maam macha allah waaw léegi Karim ci waxu vaccin yi la ñu doon wax léegi dafa am loo xam ne dama ko ciy leeral d'abord après ñu hmm. bàyyee la yow waxtaan bi nga tegal ñu nga tojal ñu yax bi hmm. euh, mbir mi fii la génnee ci réew mii la ñu ñaari vaccin yooyu benn hmm. bi Moderna la benn bi Pfizer donc euh, ñaari société ñoo ko génnee gum ci adduna yàlla bi yëpp ñaari société la ñu approuvé gum ci loolu pour mu leer léegi ñaari société yi bi leen approuvé tamit ñaari réew yi presque ëpp doole ci adduna bi ñoo ko njëkk commandé muy Angleterre ak Amérique Karim dafa am loo xam ne ci àdduna ba jar naa bàyyi xel de xam nga Sénégal tey cent soixante huitième ba cent soixante neuvième la ñu ci rang mondial nest pas hmm. Hmm. donc ñun ñaari dëkk yi nga xam ne peut-être ci premier ak deuxième ak troisième dans les dix premiers ñaari dëkk yi fa nekk yi njëkk commandé benn bi di Amérique benn bi di Angleterre léegi ñu bëgg ñoo gëmloo ne que ñun vaccin boobu am na Sénégal te beneen affaire aussi ma leeral ko vaccin bi du vaccin bu simple parce que loo xam ne la dañ ko développé ci fukki weer te vaccin la plupart des temps

déglu ma de gis nga tay ñun suñu dëkk bi dafa neige partout mais c'est seulement 25 degrés. Nek nekk moins ñun suñu dëkk bi sedd na tay mais ci 25 degrés la tollu té glace baangi partout donc glace bu wow lañu wara préserver lolu nga xamné ne moy vaccin moom gis nga vaccin bi transporter ko Sénégal rek complication bi ci nek warna mëna a coûter gouvernement Sénégal ba ay téeméeri milliards pour préserver vaccin bi rek indi ko préserver bi waxuma defar bi ak jënd bi mais hmm. préserver vaccin rek indi ko Sénégal milliards ak donc doomu ci Karim vaccin aussi bu doomu dañ déjà Pfizer moins 70 degrés. moins 20 degrés. exactement merci pour les chiffres normaux donc dis-toi que boobu pour ñu jëlee ko Amérique mu ñëw senegal munul nekk ci diggante ay sàkket wala ay classe école c'est pas possible vaccin bi buñ ko indee dafa war a nekk ci benn chambre froide. Ah, gis nga tàngaayu senegal bi sawaay gis nga vaccin boobu buñ koy génnee ci tàngaay bi balaa ñu la koy pikiir rek. mooy yàqu yëpp effet bi yëpp yàqu na c'est pas possible daal. il faut ñu dugal ñëpp ci ay chambre froide di leen vacciner di dugal ci ay chambre froide di leen vacciner di dugal ci ay chambre froide di leen vacciner te gën koo dëggalati tey vaccin bi xam nga kan lañ ko pikiir ñun ci suñu dëkk bi vice président wu dëkk bi vi déglu ma de le vice président de tous les américains moo ko mhm. njëkk pikiiru moo koy pikiiru ay sage-femme lañu ñu njëkk pikiir ak ay docteur pour ma leeral mais tey troisième wala quatrième jour bi vaccin bi génne ak léegi pour dëkkal vaccin bi les hommes politiques américains maanaam ñi gën a am importance ci loi wu. mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. ñooñu ñooñu lañ ko disponible lool léegi man. am damay laaj balaa ma lay bàyyi sax yow ngay développé ci vaccin bi léegi bu dee vaccin am na Sénégal nañ ko yóbbu assemblée nationale yóbbu ko palais ah palais de la république yóbbu ko ci ci ci maanaam. bànqaas yi nga xam ne foofu la nit ñu am makaama yi nekk ñu pikir leen ba pare ñoom ndeysaan bu bu vaccin boobu baaxee doomu aadama yi dinañu daal di pikiru loolu du am ay werante du am ay jafe-jafe ndax wax dëgg yàlla fu ñu pikiree Macky Sall moom pikir Moustapha Niass pikir waa assemblée nationale loolu werante jël na werante tekki may

40 mhm. 000 francs FAI. Mhm. Pour faire le test du COVID, il peut faire le test, il vient le test Après, il vient résultat a le coupon par mail mhm. Mais grand, est-ce que je vous montre ni 40 000 francs FAI, 1000 personnes, plus de 200 personnes, 150 personnes chaque jour. Ni à te voler le sénégal pour demain. Plus de 500, 600 personnes. Calculer 500 personnes par jour, connecte 40 millions à les journalistes. Testé négatif les tests, bien négatif les tests. Uh-huh. ministère de la santé, ni à te couper les ligues sénégalais. du jeex ci coronavirus bi noonu. du ñaata koppar ñaata te xoolal yow da ngay fay quarante léegi loolu yow kan mooy liggéey vingt millions par jour vingt cinq millions cinquante millions par jour ci dil bu mel nii cinquante millions par jour di ko bàyyi. Mm-hmm. duñ ko bàyyi ils vont jamais s'arrêter. duñu s'arrêter fekk Sénégal fekk yaa ngi nangu fekk yaa ngi ah. nangu ñu lay teg ñoom dañ lay teg rek pour dundee la ah. ñoom li ñuy sàcc doy leen. li ñuy sàcc doy leen conditions yi ñu nekk doy leen jafe-jafe yi Sénégal yi dund doy lan la ci état Sénégal musa def xoolal xoolal grand kii bi nu mu tudd euh, feebar bi nu mu tudd sax euh, dialyse feebaru dialyse bi la euh, machine dialyse yi gars yi problème yi ngi am nerf sciatique yi xaw ma nu mu tudd feebar bi sax feebaru dialyse bi la xoolal ñaata nit ñu am problème ñaata nit ñu am problème pour pour pour faju ci feebar am problème dialyse insuffisance rénale insuffisance rénale insuffisance rénale waaw merci beaucoup insuffisance rénale ñaata hmm. nit ñu am problème feebar boobu noonu demal hôpital Dantec nga xool parce que dañ fa teg ay machine ñu ne machines yi état bi dafay maye dialyse yi ay plus de 90 personnes ñoy def dialyse da deux fois par semaine boko deful deux fois par semaine da ngay dé ils sont décédé boko deful deux fois da ngay décédé légui hôpital da ngay pour def ko yegg une semaine yegg kon c'est pas comme kon c'est-à-dire que ñaata nit ko def. médecins xam dañuy régler machine dialyse pour rek ay ñaata ci def ko clinique. c'est-à-dire yërmande bi ñàkk yërmande bi nekk ci sénégalais moo doy waar sénégalais ci lépp lañ koy arnaque ci lépp lañ koy arnaque état du Sénégal mayu leen dara dañuy sàcc suñu carburant dañuy sàcc suñu pétrole dañuy sàcc suñu or dañuy sàcc suñu zircon dañuy sàcc suñu uranium dañuy sàcc salaire euh, enseignant yi dagg ci impôt bu ëpp dañuy sari euh, lépp lépp la ñuy sàcc ba pare santé bi encore ñuy susewaat deretu nit ñi mhm. Karim li ma bëgg jooyloo borom bi nga xam ne fukki at ñu ne sept mille francs CFA la fay ci

non non wax rek non wax ci Macky Sall xamal li ngay wax. non amoo grand amoo xamal li ngay wax. kooku dañ ko ay tali Saint-Louis ko ay quartier Fouta Macky Sall moo jël premier ci bonne te loolu te président bu su ko am ci histoire Sénégal non da nga def tànkal mais mais xamul grand si loolu grand ma xamul ma jaaxal man. mooy gis nga dama wax sànq ma ni Abdoulaye Wade bi muy jógee ci pouvoir bi dafa am lu mu wax mu ne di ngeen dootoo leen fayekooti tey ngeen dee yéen am ngeen problème bi muy wax lool boobu moom xam na li muy wax boobu ñun xamuñu Abdoulaye li muy wax mais boobu moom li xam na ko boobu nag France dafa assuré Macky Sall ne ko noo t'inquiète ay Total yi ay multinationales ne ko non ñooy fay salaire boobu na fekk dafa am échange nag échange boobu nag moo indi ay effage yi ngay gis ñu dem ba mu di fay ay 1000 francs par an ci impôt ngay gis ay ay ay parce que total dafa couvrir doon maanaam neefare yi Macky Sall doon def dañ ko couvrir doon ngemb li ngembam lu fàcc li ba nga xamante ni moom ba mu mel ni kuy gouverner gouverner bu baax quoi léegi nag mal bonne gouverner mooy lan quoi grand lan mooy gouverner euh, qu'est-ce qu'un gouvernement lan mooy gouverner quoi yor sa réew mooy réew boo xam ni santé bi baax na quoi parce que man dem naa euh, principal gis hôpital bu mu mel man dem naa hôpital Dantec gis ay nit yu ñoo def analyse di xaar seen résultat analyse jóge ay Kolda ay soni fu sori ñëw di fanaan ci couloir hôpital yi bu dee santé bi loolu mooy ci bonne gouvernance ñu dem ci école yi man gis naa ay film yoo xamante ne nii fii ci Sénégal la ay sàkket classe yi ay sàkket la ay xale di jàng gis naa ko gis nga ko loolu mooy bonne gouvernance éducation bi en tout cas six mille université mille étudiants six mille la ah, juróom fu juróom benn junni classe su moo am Sénégal. merci beaucoup ok léegi ci wàllu ci éducation bi laa lay wax ba léegi de man ma doon la beneen. waaw xoola quarante mille étudiants quarante mille étudiants ñoo nekk ci mbedd bi jànguñu jànguñu te état du Sénégal mën lañ jël en charge jànguñu ñu dem ci mbay mi ñu dem ci leneen lambal leneen leneen leneen xoolal xoolal ndox mi xoola courant bi lan léegi bonne gouvernance mooy lan quoi. lan moy bonne gouvernance bonne gouvernance moy xana man stabilité bi nga xamni amna Sénégal fenn la am wér ma ni loolu moom am fa moy fenn moy moy diggante Macky Sall ak ay ministre stabilité bobu ci ñom la ko gis moy ñoom am nañ gendarmerie bu leen sécurité sécurité bu woor am nañ kaat-kaat yu wóor am essence bu doy am ay passe passeport diplomatique am seen i salaire yu baax mosoo gis ministre bu grève grand mosoo gis ministre bu grève voilà man fofu la gis bonne gouvernance bi xëy moy gouvernement bi ñom seen biir ñom mën nañ gérer seen bopp ba ñom duñu xif duñu marche mais bu dee buñ leen dàqee a wax problème sax taxul ñuy wax problème yi nekkoon ci biir buñ leen dàqee benn vidéo muy wax di expliquer ay non tu euh, troisième mandat mi ngi suñu ginnaaw parce que président Macky Sall kii ma ne Mimi Touré dafa war a noppi quoi tëj làmminam bi. vraiment c'est ñoo ram fulla quoi. am na seen nit yoo xam ne ah waruñu taxaw sa kanam di wax. man man dafa am seen nit yoo xam Karim Mimi bi muy dem conseil constitu bi conseil constitutionnel. waaw bi muy dugal affaire man Sénégal la ma fekk. man xam nga bi muy yóbbu kii parrainage waaw parrainage yi. ci la dooroon sox kii. ci la dooroon sox waa ji bi parrainage yi passé noonu juste. balaa conseil constitutionnel di génne résultat yi di wax président yi ñu war a nommé di war a wax ñi da ñi war a dem campagne électorale maa ngi woon Sénégal. da romb naa leen dem ba buntu conseil constitutionnel. c'est extraordinaire. mais Mimi Touré. Je bi muy bi muy Sox Malick Gakou. Mhm. gendarmerie di couvrir muy dugg di dugal parrainage te parrainage bi mu la gën a parrainage du dara dul sàcc ak kàcc ak jaxase élection ak ñàkk def élection am transparence carte xam ni parrainage moo yàq lépp yàq la xoolal ba léegi loolu ci lañ nekk fichier électoral bi mhm. moo tax keroog mhm. maa koy wax ma ni Sonko ak Diaz Thierno Alassane Sall opposition Sénégal bi nga xam gëm nañ dara nañ booloo ñu dem nous wàcc ci mbedd bi ñun ñep activiste yëpp ñu ligganti Macky Sall mu défar fichier électoral bi ñu changer ko ñu changer ko loolu moy deug li ñi wax ni yëpp ay perte suñu temps la quoi. légui mhm. pour me revenir ci loolu bonne gouvernance bi nga wax moo tax mu won ci loolu quoi légui li wax ci coronavirus bi ak vaccin bi xam la wax di man leen rek la ci wax man bañu ma vacciné man Karim man je suis le premier accepté naa pour vacciné <coughs> mais leen rek la vacciné woo ci ay conditions yu wóor man nañ ma boole ak. Euh, Alioune Sall. ah yow do vacciné wu. bul laal la xaaral xar mo la xar mo wax la dama lay wax xar mo wax la rek xaaral ma xaaral ma non c'est que su ma yeggalee xam nga xam nga wax su yeggul wax su yeggul du am njëriñ. waaw demal demal bisimilah wax ne bu olof ci yow ci Sall Aliou rek bi nga olof olof dafa ni. olof dafa ni wax bu bu tojul du jariñ. Wa bismillah ñewal. léegi man dama ni man pare pour vacciner wu man d'accord na ah. pour vacciner wu. mais si condition yii. Mhm. Macky Sall dafa am doom bu tudd Amadou Sall. mooy booy bi jaay oto yi. waaw. boobu nga xam ne instant yi moom daanaka oto yi gën a baax ci dëkk moom moo yi ko jaay ministre yi corona bi sax moom corona bi moom ndax taay bi quoi yenn saa yi corona loolu la ci taay bi lay. Oh. <laughs> na non non non waxuma ko. <laughs> damay gënaat taay sax léegi man damaa bëggoon man léegi man gënaat dama bëggoon man man Karim hmm. Abdou Karim man man man porté naa volontaire. Hmm. avant ñuy vacciner benn Sénégalais. Hmm. jël na man Macky Sall. man ñu jël na man Abdou Karim. ak Amadou Sall.

après ñu soog mooy dóor man ak Amadou Sall. yow kon doo vacciné wu. léegi man avant muy laal benn sénégalais man man na ma loolu rek. Ah, kon yow doo vacciné wu de Idrissa gis nga Karim wax ji sax pour mu bañ sori. je vais une chose mooy li ma la wax déjà mu important te docteur yu mag yi yëpp xam ko ci àdduna bi. vaccin boo xam ne moins vingt degré moo koy tenir ak moins soixante dix degré loolu manta manta développé wu Afrique il faut ñu gën a développer vaccin boobu pour mu gën a avancer ba ñu dindi affaire degré yu sedd yooyu parce que loolu mënta xew Afrique Karim c'est pas possible parce que délivrer ko Afrique mu yegg ak jàmm ak salaam ñu denc ko ci ay frigo yu yu yu avancé la infrastructure bi moo nekkul Afrique pour vaccin boobu xam nga mi lu tax may wax lool mi ngi mel ni nga ne Dakar day commencer neige suba ñaata doomu adama ñooy faatu xam nga Dakar mënta garder neige tey Sénégal mënta yor neige Abdou Karim donc mhm. vaccin boobu ñu ay infrastructure yu normal pour mu mën a soutenir vaccin boobu déjà loolu mooy wax ji quoi mooy il faut doomu sénégal yi dugal naaw bu fekkee dañuy vacciner nit ñi ay vaccin wu tuberculose wala ay vaccin wu euh, choléra wala ay paludisme loolu nañ ko wax leeral ko te ñoom ñu jiitu ci parce que loolu mën naa nekk

de vaccin bobu vaccin bi vaccin bi Abdou Karim Amérique par 900 900 tubes 900 lañuy duggal 999 lañuy duggal ci carton 900 carton bu ne 999 lay def mais néna la logiciel bi xam nga Amérique bu yobu vaccin bobu le ñuy def Marshall armée bi moo koy protéger bu ñuy délivrer vaccin bi ci ay hôpital US Marshall armée armée Amérique day pour auto livraison bi déggoo ma de déggoo ma mhm. tellement que vaccin boobu moo ëpp valeur ci àdduna bi tey vaccin coronavirus moo pour valeur ci àdduna bi buñ koy livré auto Amérique auto bi koy livré a yow Abdou Karim armée mon koy top. déggoo ma des hommes armés di xam nga armée américaine bi moo koy topp xam nga lan moo tax ñu def loolu ñu ne dañuy bañ pour gars yi xam nga vaccin bi dafa am pour gars yi buñ ko expioné xam nga tay vaccin bobu buñ ko attaquer attaquer ay russe wala dara vaccin bi daw ak dem Russie nañ fabriquer def ko marché noir affaire mhm. donc dañuy protéger vaccin bi déjà déjà duñ ko livrer comme indi vaccin bi muy ci société dañuy indi dañuy normal yépp ñu sur place. militaire américain yaa ngi taxaw di xaar maanaam fi ñuy recevoir vaccin bi ñooñu tamit ñu ngi préparé wu di xaar gànnaay bu vaccin bi yeggee ñu dugal ko fu sécurisé doomu aadama yi ko war a jël yëpp dañu def seen tour ci liste bi ak âge bi nga xam ne moom moo ko war a jël en premier lieu déjà mooy fajkat yi ñiy faj parce que ñiy faj nee nañu ñooñu bu ñu wérul kan la ñu mën a faj donc les hmm. docteurs les sages-femmes ñooñu ñoo koy njëkk jël ok comprendre bu ko ñu jëlee ba pare ñu soog a jox màgget yi màgget yi ak ñi obéis ak yooyu ak homme politique yi parce que nee nañu politique bi tamit am na njariñ ci réew mi parce que politiciens yi ñooy passé loi ñoom tamit dañoo war a wér donc Abdou Karim je pense que tey ñun bu ñu tolloo ci Sénégal boo xam ne dañuy indi ay ay caaxaan di ñu wax ci ay vaccin wu coronavirus di ñu wax ci ay caaxaanu coronavirus vraiment sénégalais yi dañoo ah, war a. mais grand mais grand gisoo gisoo gisoo organisation yi waa Union européenne la xaw ma lan ñoo leen woonoon ñu dem daje jam ñaajo avec les mouvements panafricanistes les mouvements africains là ne dañuy dañuy xeex pour dañuy pour pour affaire sensibilisation coronavirus ak yooyu affaire vaccin. waaw non ko. nee nañu dañu dem jam ñaajo pour sensibiliser nit ñi la yow gisoo loolu gisoo loolu sax am na daal am na daal ay forum yu xew jam ñaajo man nag bëgg naa ci am plus de renseignement xam na naa pour amu si renseignement yu mat quoi mais après naa ko xool non non pas vaccin non non mais xaw ma la mo étude mais xam naa daal ci cadre coronavirus bi la gis naa fa ay mouvement yu bare bari mais naa ci gëstu bu baax a baax balaa ma si bëgg a développé bëgg ma si waxta amu ci information yi doy quoi xam nga man man dafa am loo xam ne euh, sëñ bi man sama addu loolu laa doon waxtaanee démb moom laa lay moom laay waxtaanee tey Euh, mënuma ne coronavirus amul Sénégal totalement loolu mënuma ko wax mais tolluwul ci niveau boo xam ne war naa mën a tëj économie wu Sénégal xam nga fi may waxee mooy tey euh, ñun Amérique on na xam nga Amérique ñaata cas la ñuy am par jour. Mm-hmm. deux cent mille dégguma de deux cent mille cas positifs la ñuy am par jour. wala plus. mais grand est ce que xam nga Sénégal fii cas ñaata la cas yi bi corona amee ba léegi. am nañ ah. mille six cent cas lañ am après am mille cinq cent et quelques guéris loolu ban sa te ñooñu leen leen faj du dara c'est-à-dire am na ñoo xam dañuy wax ñu confiné wu rek ñu ñu wér quoi léegi ñun lan la ñuy doyee kon vaccin bi bu fekkee ni par exemple bu doon vaccin bi sax mën na nekk te ñu mën ko def c'est-à-dire man coronavirus ci boobam grand man laa gëmul quoi. man coronavirus la gëmul africain man gëmul africain coronavirus dina ko dal. man gëmul feebar boobu feebaru africain la feebaru africain. vraiment bi c'est-à-dire côté côté par rapport ak suñuy température rek suñuy climat suñuy suñuy c'est-à-dire man gisuma gisuma man euh, ni coronavirus mën na dara ci africain quoi man gëmuma loolu. beneen affaire bu ci am a te Abdou Karim man loolu yàlla dimbali na ma yeewu naa ci temps yi yeewu naa ci fan yi man man nag yàlla yenn saay Abdou dafa may dimbali dafa am bu mat di yàggee ci dara rek dama ci xaw a jàngat euh, suñu député boobu Mamadou Lamine Diallo feebar assemblée nationale Macky Sall massawu ko. Macky Sall bind di bind flagrant délit ci ci ci Twitter di massawu euh, euh, Emmanuel Macron ci limu mu corona. waaw grand ma wax la benn affaire. Mm-hmm. est-ce que xam nga ni buntu pale mm-hmm. nit dem na ba foofu taal boppam. Mm-hmm. parce que dégg nga Macky Sall wax ci. taal boppam ba dee. déedéet Macky wax ci. déedéet ah, ngay xaar Macky wax ci sénégalais. Macky Sall bàyyi ko fi day dem day dem xooli sa France tubaab bu dee. xam nga ñaata nit ñoo dee ci mbënd mi nii ci mbëkk mbëkk mi. quatre cent quatre-vingt ba cinq cent et quelques personnes. ñoo ci dee ay jeunes sa ndaw réew. Macky Sall faalewu leen fa la leen bàyyi. ah ba ko sax tuuti sax def ko Idrissa Seck bi rek ba mu ci waxee daf ko dàq. deuxième réew léegi nag waaw léegi nag mi ngi noonu nag léegi maintenant yow kooku nan ngay xaaree ci moom nga naan benn Mamadou Lamine Diallo mooy feebar mu am corona mu mu waxal ko mu wax ko Massa du ko mus a def ci àdduna du ko mus def parce que faalewul nit ku ñuul gëmul boppam. gisoo nu mu def di nuyu dem di nuyu doom Pape Bouba Diop bi booy peeral ko noonu ci kanamu asken wi yëpp cest à pour loxo xam ne nii c'est-à-dire nit dañ ko sequl ak doomu aadama te loolu laa Sénégal yi may leen fekk comprendre leen ñeen ko seqal du ay nit ah duñu ñu duñu am jàmm il faut ngeen xam ni sequñu koog ay doomu adama ay baa baadoola de premier degré lañ ko seqal te ñooñu te baadoola saa yi xamul yàlla xamul yàlla ñun il faut ñu jug Sénégalais yi boolo moo tax may waxaat may lancer appel man grand xam naa ne fii laay tàggatoo sama kàddu bu mujj mooy. waaw mooy sénégalais yi ma wax opposition bi ñi nga xam ñoo fi nekk comme ni ñu koy waxee Ousmane Sonko euh, euh, Barthélemy Diaz ak euh, Thierno Alassane Sall ak ña ca des ña ca des ña ca des nañ dem ñu nañ jug ak activiste yëpp ñu booloo ñu taxaw ci fichier électoral bi changé ko baaxul fichier électoral bi baaxul na sénégalais yi jug ñu lijjanti loolu. nañ lijjanti loolu fichier électoral bi fan lépp nekk actuellement te ñu bàyyi ay Mimi Touré dof bi ñuy déglu ay nit yoo xam ne gëmuñ dara seen intérêt rek bu ñu demee ba gisatuñ ko di sonal nit ñi man loolu laa gëm te loolu laay déglaat mooy cadre bu mujj bi grand maa ngi tàggatoo grand maa ngi tàggatoo sama batterie ay conseil jeex nag. waaw voilà donc euh, waaw waaw léegi benn cadre bu mujj rek na bu gaaw. Mhm. léegi Abdou Karim tuddee Macky Sall tali yi ñu tuddee Macky Sall nii loo loo ci xam temps yi loolu lañ jël de dafa mel ni ay temps loolu lañ jël. <laughs> grand. <laughs> ah non mais mais man dama ci dama waar man mbir mi dafa ma jaaxal de. vraiment. vraiment ah, léegi léegi léegi léegi man lenn laa gis lu ñu yab Mansour Faye tuddewul Macky Sall doom mais mu tuddee ko Tali Sénégal mais c'est grave wala tuddee na ko ay doom moi je comprends pas man lu ma comprendre ci Sénégal je comprends pas. non cest cest loolu moom ah gis nga grand gis nga xam nga dañu nekk ci dëkk boo xamante moom laa la sànq ne la ay baadoolo lañ ko seexal ñoo nekk ci pouvoir bi waaw wax naa ko fi nañ dem ba période boo xamante ni Macky Sall bi ko bàyyee ci pouvoir bi des na tuuti kuy nootu boo waxul allahu Macky Sall sax am problème boo newul Macky Sall akbar boo newul waxul Macky Sall akbar sax am problème parce que dafa dof parce que ñii xam nga nguur Macky Sall leen dee éliminer Dakar Dakar imaginer Dakar ne Macky Sall ne day éliminer Dakar cest à kuy noor boo waxul euh, Macky Sall ak Bar sax gars yi dal sa kaw. non Badola xamul Ndiowaan Badola xamul Ndiowaan ay dof lañ jox réew mi ay c'est que dañ naan pouvoir ça rend fou le pouvoir absolu rend absolument fou seq ñu ko ay nit donc moo tax ñun Sénégalais yi dañoo war a jug dès maintenant Macky am jàmm. léegi nag moom ku nekk lu neex moom bu la neexee mën nga ko jël tuddee ko ku la neex mais réew moom fi ngeen koy bàyyi te lu ko fi tuddee ku la neex boo fi jógee ñu dindi ko tuddee ko nga xam ñoom lañ ko war a tuddee ah, yow waxoo waxoo Mamadou Dia waxoo Mamadou Dia waxoo waxoo Serigne Touba waxoo waxoo Bagnès waxoo Alaaji Malick waxoo prêtre yi yi waxoo waxoo waxoo ñu xeexal réew mi waxoo waxoo Foutiou Tall waxoo wax ay Macky Sall Macky Sall lan la fi def ñu ko tuddee réew <laughs> mais Macky Sall lu mu <laughs> bonne gouvernance et eh, grand maa ngi tàggoo waaye maa ngi lay. jërëjëf jërëjëf Dramé merci merci jërëjëf Sadou Salah rasulullah voilà sa waay dafa xaw a guddi fi mu nekk xam naa moom day dem rek daal di julli.